أيها المستمعون الكرام لإذاعة سفينة تيفي أخوكم وصديقكم في الله إمام أبو بكر مبوج يسلم عليكم ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi suivre seen télé Safina TV mu nekk fii ci Scat Urbam seen mbokk seen xarit abu Aboubacar Mbodj mooy ñëw di waxtaan ak yéen gannaaw bi mu leen nuyoo ci nuyoo lislaam ba pare di ñaan borom bi tabaaraka wa nag mu ubbil ñu suñu dënn leeralal ñu suñu xel yombalal ñu itam lii nga xam ne moom lañu sumb pour waxtaan ceeg yéen te yéen itam mu ubbil leen seen noppi dënn ak xel ba ngeen mën a dégg lii ñuy waxtaane man ko jariñoo suñu waxtaanu tey ñu ngi ko jëmee ci soppe bi muy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne weer wi weer wu tedd la woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla defal na ko ci ay teraanga yu màgg màgg màgg moo tax ñu bëgg ci def ay waxtaan yoo xam ne tey liñ ci njëkk jël mooy taw sallallahu alayhi wa sallam maanaam wekk gi nga xam ne moom la jullit yi war a wekk yonent bi jox ko cër mooy jox ko a ak yitam màggal ko ak màggal sunnaam te itam loolu kat du ñun ñii ñun ñoo ko defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu bopp waaye borom bi tabaraka wa ci boppam moom moo ko wekk màggal ko yëkkati ko wax ñu ñun itam ñu wekk ko yëkkati ko jox ko xormaam borom bi tabaaraka wa taala ma ngi wax ci suuratul fath ba'da a'uudu billahi min ashaytaani rajim inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadhira li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa wa asila wax yonent bi ne ko ñun yàlla day ñoo la yónni ngay seede mboolem xeet yi jiitu woon ak seeni yonent ndax yonent bu ne day ñëw seede ab ummaam xeet wiñ ko yónni woon ci ñoom bu ñépp seedee ba pare nag yonent bi ñëw seede ñépp nag yonent yépp waaye yàlla yónni ko itam muy koo xam ne dafa war a bégal umma bi mooy xeet wi ak doom aadama yeeg jinne yépp ci won leen ni li yàlla wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni nga xam ne yàlla moo wax ne nit ak jinne binduma ko lu dul pour ñu jaamu ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war leen a bégal xamal leen ne képp koo xam ne def na mission boobu muy jaamu yàlla mooy yi nga xam ne daf ko ko sant muy ay ibaadaat ak yi nga xam ne nag muamalaat yi maanaam jaamu yàlla yi lu deme ne julli lu deme ne koor lu deme ne joxe asaka lu deme ne aj màkka waaye muamalaat yi itam nit ku nekk nga xam ne kii kat ab doomu aadama la nga jox ko xàqam jox ko cër muamalaat yooyu rafetal diggante yi tàmbalee ko sa digganteek sa boroom sa digganteek maanaam jaami yàlla yi tàmbalee ko ca say wayjur ak sa mbokki jege ñaale ba ci say dëkkandoo ba mboolem doomu aadama yi nga xam ne rek am nga ak relation ñoom ci àdduna ñooñu la yàlla wax yonent bi ne ko nga bégal leen ne ku taxaw ci yooyu danaa ko faye ëllëg àjjana waaye itam nga tiital xub ñi nga xam ne nag loolu dañ koo lànk bañ koo def nga wël leen ne loolu kat lim leen di jural mooy waman arada an dhikri fa inna lahu maishatan dankan wa nahshuruhu yawma alqiyamati ama mooy àdduna ci boppam sax daf fi dund dund gu xat ndax du nekk ci jàmm du nekk ci dal waaye bu àllaaxiraa itam nag bu ñëwee borom bi tabaaraka wa taala dana ko duma loolu la yàlla wax yonent bi ne ko lii dey moo tax ñu yónni la bu ko defee li tu'minu billahi wa rasulihi mu yónni ko nag ngir mu xamal ñu kan mooy yàlla xamal ñu lan moo tax mu yónni ko ngir ñu gëm yàlla gëm ko moom seydina muhammad sallallahu alayhi wa waaye nag yàlla ne ñu ngir ngeen dimbali ko maanaam wekk ko yitam jox ko àqam jox ko cëram te xam ne moom kët du moroomu kenn te itam tolloowu na kenn daraja ci boroom bi tabaaraka wa waaye itam nag ngir mu ànd ak yéen ngeen di sàbbal yàlla suba ak ngoon guddi ak bëccëg kon nga gis ne gëm yàlla gëm ab yonentam dimbali yonent bi sallallahu alayhi ci mission bi nga xam ne moom la ko yàlla jox waaye itam nga jox ko cëram wu xamal ndax nga xam ne moom mooy afdalul xalqi mooy ki gën ci mboolem mbindeef yi yàlla bind mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen gën ci fànn yépp nag moom itam yàlla moo ko tànn tànn ko ci biir arab yi tànnal ko ci banu haashim biir banu haashim mu tànnaat ko ci moom moo tax mu ne ana afdalu ibnu aadam wala faxra neena képp koo xam ne yaa ngi jóge ci maam aadama ak maam xawa rekk maa la gën te waxewuma ko nag ngir tiitaru walla ma yëkkati sam bopp waaye yàlla ci bopp moo wax ne wa amma bi nicmati rabbika fa xaddis bu la yàlla defalee xéewal na nga ko waxtaane bu ko defee ñu boro yonent boobu sallallahu alayhi wa kon dañ koo war a jàppale dañ koo war a dimbale dañ koo war a itam déggal ndax borom bi tabaaraka taala ma ngi melal ñi nga xam ne kët maanaam ñoom dañoo déggal yonent bi dimbale ko jàppale ko te roy itam li nga xam ne moom la leen andil ndax yàlla ma ngi wax ne alladina yattabicuuna arrasula annabiya al ummiya alladi yajiduunahu maktuban indahum fi ltawrati wal injili yamuruhum bilmacrufi wa yanhaahum an ilmunkar wa yuxillu lahum altayibaati wa yuxarrimu calayhim alqabaa'itha ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يالا دي وخني نيغا nga xam ne day dañoo topp بي صلى الله عليه وسلم wa sallam yonent boobu nga xam ne kat biñ mooy koo xam ne illettré la mënul liir mënul bind waaye nag loolu yàlla ma ngi koy def pour won mu nekk bokk ci mojizaati yonent bi maanaam ay kawteefam ak i kéemaanam maanaam li mu nekk ummi yu ñëw andi fi téere boo xam ne xam ngeen ne arab langue yépp ñoom ñoo ci gën a éloquent maanaam ñoo ci gën a neex nu ñuy waxe ku dégg arab ba gis chiaro yi wala nasre yi da nga xam ne làng la boo xam ne amul benn làng bu tollook moom ci àdduna léegi nag yonent bi booba Okaz xam nga dañ doon def ay maanaam concours de poésie maanaam ku nekk rek loo bind rek nga ñëw andi ko littérature mais yonent bi andi fi alxuraan boo xam ne li ñu doon ña gënoon a mën a wax ña gënoon a mën a bind ñépp bi alxuraan ñëwee daf leen a jommal ña ko ca doon weet di yàlla ne leen waaw ku bu fekkente ne wax ngeen ne kii moo ko fent te ngeen a indi fukki saar rekk ñu jéem mënuñu mu ne leen waaw léegi sax fukki saar bari na waaw léegi benn saar rek bu ngeen ko indee nga xam ne kenn du ko xàmmeek alxuraan ñu xam ne kii kat kon moo ko bindal boppam waaye kenn mënul ñépp lottu ci mu ne yonent boobu nga xam ne moo fi indi téere boo xam ne ñépp la maanaam noppiloo kon moom kët ñëwul ba ñëw rekk ngeen koy door a xam yàlla di wone ne maanaam tawreet yonent yàlla Muusa téereem ba mu ko joxoon yonent yàlla Isa muy biibul bi bu ngeen ca demee ñoom xam nañ yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu bind ci kañ lay ñew ban fami lay bok ban lang lay lak ak buy am ñaata at manam lu bare bare bare, ba nga xam ne jamono ji yonent bi wara ñew sax xamoon nañ ne ñang ko doon seenu ne waxtu wi keut ashraful khalqi ci la wara judd sallallahu Alaihi Wasallam, mune yonent bobu nak bu ñëwee kat ya'muruhum bil ma'ruf mom de leen di digal mbax waaw lepp lo xamné moy tax nga jubok yalla jubok nit ñi rek mom la yonent bi indi ndax ma bu'ithu li utammima makarimal mal la yonent bi wax man yalla daf ma yoni pour ma motli jikko yu rafet yi waye di len terale itam lepp lo xamne dafa ën ñaaw lépp loo xam ne mooy tax du ngeen jubóog yàlla du ngeen jubóog seen mbokk mbindeef yi rek yonent bi tere na leen ko ba pare nag lépp loo xam ne lu teey la moo xam lekk la moo xam naan la moo xam jëfandikoo la lépp loo ca xam ne day jariñ doomu aadama rekk mu daganal ko ci yéen waaye mu xaraamal ci yéen lépp loo xam ne maanaam dafay lor doom aadama moo xam lekk la moo xam naan la moo xam jëfandikukaay la boo pare itam nag yonent bi bi mu ñëwee maanaam lépp loo xam ne ay mashaqaat la ay yu jafe-jafe ci jaamu yàlla yépp yàlla daf koo teggil xeetu Seydina Muhammad nga xam ne bu njëkk bu fekkente ne maanaam sa yére dafa takk sobe booba doo ko laabal ci fóot danga koy dindi wut beneen bu taqee ci sa yaram nga lelli loola loolu lépp yàlla ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak fonk gum ko fonk ak fonk gum xeetam fonk xeetam moo tax loolu lépp yàlla teggi ko ci ñun moo tax ne yàlla ne ñi nga falladina amanu bi ñi nga xam ne ne gëm nañ ko wa azzaruhu wa nasaruhu ñu dimbale ko teral ko yëkkati ko jox ko gëddaam ba pare topp leer gi nga xam ne moom la ëndaale muy alxuraan yàlla ne ulaayka humul muflixuun ñooñu dey ñooy ñiy ëllëg te ñooy nekk itam am itminaanul xalb ci àdduna muy xel mu dal bu ko defee nga gis ne kon yàlla ci boppam mo fonk yonent bi ba pare dor ñu ko fonk lo lolu bokk na ci likoy leral yàlla ci mbaxam ak katanam ndax moom mom lépp mom ñépp bind ñépp bind yonent bi mbax gu nekk ci mom moko def waye nak wa anna al fadla bi yadillah yutihi may yasha yàlla mo yor ngeeneelam mo koy jox ku ko neex mom la sop mu jël yonent bi def ko muy afdalul khalqi wa ashrafuhum wa xabibuhu def ko muy ki gën ci mbinde fi ki ci gëna a tedd ba pare def ko muy soppeem motax yàlla sax buy wax ak yonent bi def nan ko ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir me du wax mukk jaar ci turam ngir rek won ñu ne ki kat dañ ko wara jox cër yow mi yàlla yónni yow mi yonent bi yow mi nga xamne ne gën ci ñi yalla bind bu ko defé motax yalla nak wax ñu ne kon na ngeen di xam nu ngeen di waxanteeg moom mom, tax mu ne tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a bacdikum bacda mu ne yeen yen yi yeen ñi gëm yalla deug bu len di wo yonent bi sallallahu alaihi wasallam mel na kuy woo seen moroom taxaw fële di ko ëyyu bu leen ko def bu ngeen koy woo na ngeen suufeel seen baat te na ngeen sëgg ba toll ci noppam te na ngeen ñëw ba agsi ci moom door a wax ak moom bu leen def ne rekk bu ngeen ni ngeen di waxeek seeni moroom dal bu leen ko woo waxanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaan ñu ne وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما يالا دينو ñu دو ديال مك دو yell مك دو jaadu مك دو باخ مك تي أبجلت muy lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lor gi nag moo xam ci wax la moo xam ci jëf la loolu daal jaaduwul rafetul te baaxul ngeen di lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noo ko mën a loree nag te itam nag na ngeen ko jox cër te fonk ko te itam kat du fi jóge mukk kenn ci yéen di denc soxnaam di ko donn gannaawam mukk abadan ndax nee na loolu kët lor yonent bi ak mu fiy jóge wala bi muy dund sax sa xel di nekk ci ay soxnaam loolu kët lu rëy la ci yàlla te yàlla nag lum ne lu rëy la ab jaam da ko war a moytu moo ne lor yonent bi na ngeen xam ne lu rëy la ndax man aada lii waliyan rek faxat aadantuhu bil xar bi ci xadisul quds mu ne sama waliyu sax waliyu rek waliyu yàlla boo ko yonent yàlla nee na képp ku ma ko loral yow déclaré nga ma guerre waaw koo xamante ne lor ab waliyu mooy déclaré guerre yàlla kon wor ab yonent bi moom mooy dekk mooy lan kenn xamul turam moo tax yàlla ne kaana inda allahi azima na nga xam ne dal def nga lu rëy ca yàlla moo tax ah màggal yonent bi teral ko jël ay ya ay soxnaam sax yëmul foofu ne rekk bu leen xalaat ne dangeen leen di takk ëllëg moo tax yàlla ne annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim wa azwaajuhu ummahatuhum yàlla ne ñu na ngeen xam ne daal yonent bi sax ci gàttal moo leen gën a sañ ci seen bopp Yen sen jëm ji yonent be len gën ci sañ nga xamne kon sa jëmmib julit bu ko yonent bi sañon bu ko neexon mu jël jaay bu ko neexon mu jël yendal ko fenn bu ko neexon lu nekk mu def ko ko te taxul kët mu def ko ndax yalla ma ngi ñuy waxat ne sax na ngeen xamne ne ay soxlam ay soxnam ñoy seen yaay te xam ngeen ne nit lim war digganteem ak yaayam mooy bum ko ne tax o waaw wat laa taqul lahuma uffin wayjur kenn du ko ne sax e wala ah sonn na wala kenn mënula dëkk ak yow mu ne nag yonent bi ay soxnaam ñooy seeni yaay te itam nag kon moo leen a gën a yay ci seen jëmm ji te itam nag yàlla mag ñuy won ne malgré moom moo ñu gën a ci suñ jëmm ji waaye li ko firndeel mooy laqad jaakum rasulum min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminina raufur rahim yàlla di ñu won ne yónni naa ci yéen ab yonent boo xam ne ma ngi bawoo fi yéen waaye nag ku tedd la waaye ku xër ci yéen la ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu sañon julit yeb aljana lañuy jëm mo tax mu ne kullukum yadkhulul jannata illa man aba yen ñeppay dem aljana ludul bam dess des ñi bañ ñu ne ah kon kay ñeppay dem koy bañ mu ne man ataani dakhalal janna wa man asani faqat aba neena kep ko xamne top na sama ndigal ndax luma diglé digle ko digle luma téré yalla ko téré na ko wóor ne moom day dem àjjana waaye nag ku fi bàyyi samay ndigal ak samay tere ah bu boobaa nag foo dem yaa fa yóbbu sa bopp yaa bañ moo tax ñu gis ne yonent boobu moo tax malgré ne awlaa bil muminina min anfusihim teewul yàlla ma ngi ko doon tagg ndax mbaaxam rekk fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan xal bi lan faddu min xawlik yonent bi bëgg gum bëgg woon jullit yi ak yërëm gu mu bari woon yërmande ci ñoom ak ñeewante gum ñeewante woon ci ñoom moo tax yàlla ne ko bëgg dëgg nag yërmande ji ma def ci yow mu dem ci ñoom moo tax nga nooy ci ñoom nepp waaye boo soxoroon di leen gëdd di leen jànni di leen maltraité kon kat dootoo fi gis kenn ndax jullit yi dañoo demoon ba mënatuñoo muñ yonent bi benn fraction de seconde ku xëy rek ñëw toogu toogaanu yonent bi yàlla dem ba nga xam ne nag xam na ne ñii kat wax dëgg yàlla cofeel la waaye nag ña ngi gêné yonent bi yàlla ne leen nag ah yonent bi kët léeg-léeg nit la rek comme yéen léeg-léeg dañ soxla boppam léeg-léeg war naa gis njabootam léeg-léeg war na noppalu léeg-léeg war na wéet ak boppam kon nag na ngeen di képp ku ñëwati bul toog boo waxee sa soxla ak sa aajo demal bu leen fi toog di xaar walla ku lekk na ko martoo di ca bitti léeg-léeg nit ñi sax dañuy dem ba nga xam ne maanaam du ñu mën a muñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fàtte fàtte fa dara bu ñu demee wëlbatikuwaat di ko jëlsi yàlla di wax ak ñoom ne leen bu boobaa sax nag na ngeen yem ca mbedd ma ñu jël leen ko xam ngeen ne kii de yàlla wax dëgg yàlla ñun war nañ koo wekk war nañ koo bëgg war nañ koo jox cëram moo tax yàlla di ñu di leen yar ne yaa ayuha alladina amanu laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahri baadikum li baadin an tahbata amaalukum mu ne yéen ñi gëm yàlla dëgg bu leen di yëkkati mukk seen baat ci kaw baatu yonent bi sallallahu alayhi bu yonent bi toogee daal képp koy wax na nga suufeel sa baat te bu xasee ba wax bu kenn ñeppeeti gimiñam te itam nag bu leen nekk di wax ca kaw li kaw comme ni ngeen di waxanteek seen moroom wala ngeen di wo yonent bi melne koy wo kenn ci yéen wala ngeen di tuddu turam diko salalu nan muhammad ab julit warul def loolu ndax yàlla sax waxna las la sank ne ya ayuha rasul lay wax ya ayuha nabiyu yaa ayuha mudathir yaa ayuha muzammil ndax rek baña tuddu turam bi sallallahu alaihi wasallam mu ne kon yéen nak deug bu ngeen koy woti sax bu len ko sàll nan muhammad motax tax bu ñuy julli ci yonent bi sax nan allahumma salli ala sayyidina muhammad ndax sayidan yàlla wax na ko ab yonent comme mas na koo wax ab yonent yonent bi mo ci gëna yayo motax ñuy wax ni allahumma salli ala sayidina muhammadin yow yàlla yàlla na nga dolli xéewal te musal suñu sang bii di muhammad ndax yàlla ci boppam moom sax du ko sàllalu kon ñu nitam waruñu ko sàllalu boo gisee ñu ne yonent bi bu muy joxe salaatul ibrahimiya boolewu ci siratu siyaada maanaam sayidi waaw yonent bi jamono jooja moom ma ngi woote diine ji di bees booba ñii yaakaar ne nguur a ko tax walla bëgg gis leen ma walla bëgg daraja ñee di ko suufeel moom mu gën di suufeel boppam lool moo tax mu ne allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ne loolu ngeen di wax waaye ñun ñii tey bu ma la doon woo booy wax sa tur doone ma sëriñ diw dag naan ma rek xaamidu yoro baat di joxe exemple ci suñ sëriñ xaamidu yoro danaan la man kat xaamidu yoro baan waaye yow respect bi war sa diggante moom motax nga ne ko cerno Hamidu Yoroban, wala cerno Serin muntaha wala nga ne serigne babakar mansour ñooñu lolu cër la motax yonent bi ne anzilu NASA, manazilahum président bokoy wax da nga nan son excellence monsieur le ministre monsieur le directeur yo yep nak motax ñuy wax allahumma salli ala Sayyidina muhammad bu ko defee màggal gi nga xam ne moom la yàlla santuñu ñu màggal ko yonent bi jàngal ko saxaaba yi saxaaba yi day ñoom dañ ko doon màggal di ko yëkkati ci jox ko cëram loolu day euh, am na exemple boo xam ne rawahu urwatu bnu mas'ud as-saqafi لما أتى للتفاوض مع النبي في صلح الحديبية خمجيني عروة بن مسعود بابا دوغغلون تي الإسلام صلح الحديبية موي باكت بوا خمني دو نو فيولانس بوا خمني ديغنت مشركون أك جلت يدنكو سينيوان بين باكت pour ne dal bobu yonent bi dafa joge madinatul munawwar ñew ne dafa wara def manam Euh, umra ñu ne ko du ci dal déedéet mayuñu la nga def sa umra yonent bi ci bëgg jàmmam mu ne waaw d'accord ñu ne nag nañ signé benn pacte de non violence boo xam ne day dox suñ diggante mushrikuun ya boobu seen représentant bokkoon na ci Urwatu bnu Mas'ud as-Saqafi boobu mu ñëw nag di wax ne bi mu demee ba ñëw ci waxtaan wi موخ خريش نلين أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على خيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامةً إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خف خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له أخرجه البخاري آه، عروة ابن مسعود الثقفي بيغا خمينتين دمنا تا ديليغاسيون بو مو واخ وا قريش نيل وا قريش يين نيت يين نيما يابالون والله ماغي لين دي واتال ني ديليغاسيون بو mas naa caa ànd jëm ci buur ci buuri àdduna yi ndax dem naa ca xaysar dem naa kisra dem naa ca najaasiyu buur yooyu nga xam ne ñooy buur yi gënoon a màgg ci jamono jooju Rome yépp mu ne walla waa ngi leen di waatal ci yàlla ne mësumaa gis benn buur ci buur yooyu te xam ngeen ne boo jamono yooyu buur vrai sens du terme la woon maanaam ay waxam waaw la doon dégg tereem déet rek mu ne waaye mësuma cee gis benn buur boo xam ne àndandoo yonent bii sallallahu alayhi wa sallam ni ñu ko wege ak niñ ko màggale ak fañ ko teg mësumaa gis buur bu ñu teg foofu te moo ne yorul woon jaasi fa mi ma rahmati min rek linta bi yàlla waxoon yërmande joo xam ne am na ko ci ñoom rek nooy ci ñoom nepp yërëm leen dimbale leen ñeewante leen mu ne mbax moom Muhammad mii ma leen di wax day sallallahu alayhi wa sallam nee na mosumaa gis mu xaaxtandiku walla tëflit ba tëflit wa ak fer ci suuf bu tëflee rek rekk kenn gaaw na dëkkandu ko ci loxoom diw ci kanamam diw ci yaramam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woykat yi woy nañ ko nee nañ sax misk la woon maanaam odeur la woon boo xam ne dafa jommal nit ñi parfum bi gën a neex ci parfum yi bu yonent bi xaaxtandi ko wala mu tëflit xet googu lay maanaam dégagé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu la masee te nuyoo maanaam danga toog ay fan yoo xam ne xetuk parfum bi day des ci sa loxo te laalul dara mu ne leen yonent boobu moo tax sax boo demee ci maanaam aj gi nga xam ne moom la ajoon bi ñu ñëwee jóge bi muy sànni si jamra nga xam ne taxlil bu njëkk bi nga xam ne da ngay summiku war a solaat sa yére watu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu bi mu watoo saxaaba yi dañu doon xëccoo karaw yi ba ku nekk da ngay sax jéem ne bu doon benn karaw sax naa ko ci am ngir fonk guñ fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barkeelu ci ay aasaaram te itam mu ne leen nee na bu leen digalee ñoom daal ca saasa la ñuy exécuter ndigalam lu mu leen tere nag kenn waxu ko mu ne bu daan jàpp dangay defa ne sax dañuy bëgg a reyante ngir rekk dëkkandu ndox mi nga xam ne ci la doon jàppe nee na nag buy wax moom ñépp weñ sax bu naawee danga koy dégg ngir ken du sëqat te neena ken ci ñom nak du yëkëti bëtam bi jàkkaarloog yonent bi sallallahu alaihi wa fixé ko mësul am ku ko xor rek seug sallallahu alaihi wa ngir magal ko koko hadith buabu bukhari yu mom moko ko solo sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne bi yonent bi wax deug yalla julit bu xam kon bu koy tuddu daf ko wara yëkëti daf ko war a teral ndax ku xam kii doo yëkkati lenn di ko teg ci moom lu juunoo di ko ndax moom yàlla moo ko tànn te nee na ko Muhammadul Busiri yu sax ma ngi koy wax maanaam yonent bi sallallahu wa sallam mësula dañ yàlla di ko tànnal ay maamam ay maam yu set yu sell yu kenn mësula teg benn tuuma nga xam ne fuñ mën a bokk dañ leen di xam ne ñi ci gën a rafet jikko lañ ma sa bokk ba mu àgg si ci moom moo tax màggal yonent bi danga koy def ci xol mooy nga foo toll bu ñu ko tuddee sax nga yëg ne tudd nañ ku tedd ne sallallahu alayhi wa sallam jox ko gëddaam di tewlu itam ay waxam waye itam fonk ay waxam di jang ay jikom <coughs> xam itam plasam, motax magal yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam dañ koy def ci xol yek ne fiñ ko dugal dugaloo fa kenn ndax mo tax mu waxone kenn ci yeen ak ngeumam du mat li fekk gënaluma ko boppam gënal ko ndeyam gënal ko baayam gënal ko alalam gënal ko àdduna ak li ci biiram tant que gëmaluma la loolu yépp rek yow sa iman manqué na ngëmatoo moo tax kii daal dañ ko war a màggal ci xol mooy dugal ko fi màggal ko yëg ko fonk ko ba pare nak diko magal yitam ci suñu lami gis nga imam malik radiyallahu anhu mom mo don jangale ci rawdu yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye bis buakam xamantene daf dan jangale ci yonent bi sira wala da fay dem set yere yi gëna rafet ci yere set parfum bi dàq ci parfum teglu manam matla, buakam xamne da ci lol dar yu rafet diju ci pour ku ñëw xam ne tey yii ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewul grammaire jàngalewul littérature jàngalewul yeneen xam-xam tey ci yonent bi lay jàngale sallallahu alayhi wa sallam kon nag dañ koo war a màggal itam ci suñu làmmiñ mooy tagg wi war ci suñ digganteek moom ñu defal ko ko comme ni nga xam ne noonu la ko yàlla borom bi tabaaraka wa taala tagge ndax yàlla ci boppam moo ko njëkk a màggal ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabii yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yàlla mi bind yonent bi xam ko moo ñu wax ne man yàlla de maa ko bind maa ko sàkk lu nekk ci moom maa ko ci def waaye man de maa ngi julli ci moom sama malaaka yi nga xam ne laa yaasuuna allah ma amarahum lu ma leen sant ñu def day ñu julli ci moom kon yéen ñi wax ne gëm ngeen bu dee dëgg na ngeen julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon effacé la ci fukki bàkkaar yëg bindal la ci fukki tiyaaba yëkkatil la ci fukki daraja sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kon nag bokk na ci li ñuy tax ñu mën a màggal yonent bi mooy ñu di ko waxtaane di wax ay jikkoom di wax ay famim ñépp xam ne moom maam la yi ci maam yi wayjur yi gën ci wayjur yi moom la ko yàlla tànnal def ko itam muy soppeem mu def ne képp ku ko lor man nga lor képp ku ko topp man nga topp képp ku ko weddi man nga weddi moo tax dañ koo war a jàngale maanaam biographiam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal nit ñi ay jikkoom jàngal ñu ñan ñooy njabootam jàngal ñu ñan ñooy ay saxaabam ba ñu xam seen gëdd lolu moy suñu émission bi nga xamné ñëwon nañ fi ci Safina TV don ko waxtaan ak yeen mu nekk fi ci s4 Urbam di nuyu suñu réalisateur bi muy suñu jarbat Samba Si di nuyu suñu directrice soxna ñu maba, di nuyu itam suñu serigne Thierno Hamidou Yoroban di ñaan borom bi tabaaraka taala yal yalla may ko gudd fan yal na yàlla may ko wér yal na yàlla jàppale ko ci réalisation yi nga xam ne léppam daf ko def rekk ci lislaam fii ubbi na fi maanaam internat bu ñuy jànge alxuraan di ko mokkal def na fi franco arabe boo xam ne dañ fi jàng prime maanaam jardin préscolaire ba primaire ba CM2 boole ceeg def fi grande mosquée def fi rajo Safina FM te loolu lépp nag wax dëgg yàlla ci ay moyens boppam dong la yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla sàmm di nuyu mboolem spectateur yi nga xam ne ñoo doon seetaan suñu émission seen mbokk seen xarit imam Aboubacar Mbodj moo leen di nuyu di leen ziyaar di leen wax السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ببنين يوم